Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés euh, cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar. internetu euh, Ngabou Média TV euh, dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dooree ko ak mbirum premier ministre Ousmane Sonko gannaaw a tukkib nemmeeku wala sax doxu nemmeeku bi nga xam ne defoon na ko ca Colobane moom nag premier ministre bile mi ngi wéyanti ba tey di amal ay doxu nemmeeku yu muy amal ni ki démb ci talaata gi nag mu demoon fi nga xam ne moom mooy ca primature ngir nag daje ak ñen représentant ak commerçant yi ak itam askan gi ci noonu nag mu bokk ca la ñu waxtaanee a def ba daal di saafara eh, ci jafe-jafe yi marché yi di eh, jànkuwanteel moom premier ministre Ousmane Sonko nag eh, gannaaw bu mu bàyyee xel ñi nga xam ne nag ñoom ñooy représenté ñu yooyu les acteurs ndaje bi ñu mel nak ñu ko doon amal uh, ci uh, teewaayu ki nga xamné nak mom moy mooy gi ñu dénk ki nga xamné tam mom moy ministre du commerce et de l'industrie ministre de la jeunesse des sports et de la culture jëwriñ gi ñu dénk wàllu microfinance bu économie sociale solidaire ak itam délégué général bu DER ak préfet bu Ndakaaru Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar